benn fan ci weeru novembre àllarba dellu rafetlu seen ànd ak programme Leral TV mbokk yi euh, comme ni ngeen ko xamee 12 minutes chrono fukki minutes ak ñaar ngir ñu waxtaan ak benn euh, invité ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum actualité tey nag dañuy dalal Mamadou Guèye origi l'original comme ni ñu koy woowee mu nekk coordonnateur national bu euh, gëm sa bopp salaamaaleykum. lu vraiment invitation bi ni nga ko ñëwee. honoré ko donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. mais maa ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte teewaat fii. donc euh, pour la grande coalition Gëm sa bopp déjà nuyu waa Parcelles Assainies nga ma jógee nuyu waa Yoff nga ma cosaanoo mais nuyu aussi la grande coalition Gëm sa bopp avec à sa tête le futur dans un futur très proche le futur président Bougane Gueye Dany mais avant muy nekk président il faut d'abord régler les parrainages dysfonctionnement bi nga xamante ne noté woon nga ko mm-hmm. est-ce que concrètement ça a été changé au niveau de la délégation des, des élections Effectivement, la direction générale des élections a reconnu quand et changé nañ ko avec moult difficulté quand même mais quand même on a su tenir tête comme je suis un peu têtu entre guillemets donc moi j'ai demandé déjà la décharge et puis ñu changé ko parce que ils avaient pas devers et bizarrement la version corrigée d'accord concrètement bu ñu ñëwaatee ci résultat yi euh, jafe-jafe yi nga xamante ne noté woon ngeen ko mm-hmm. euh, surtout ci fichier électronique bi c'était quoi exactement mais en réalité xam nga ñun on a anticipé un peu le parrainage parce que aussi am nañ ci tuuti expérience parce que en ah, li ñu gis mooy que comme démarré woon nañ saisie bi sori nañ ci moi j'avais dit que nañu commencé xool clé bi donc bi ñu testé clé bi on a vu des anomalies benn bi dafa nekk ci date d'expiration beneen bi nekk ci non concordance entre fichier bi nga xam ne moo nekk ci clé bi ak aussi le support papier bi nga xam ne moom la ñu tiré parce que foofu da ngay gis ne ci clé bi c'est en deux lignes non et prénom alors que fi c'est en une seule ligne mais li gën a doy waar du loolu li gën doy mooy la date d'expiration a été verrouillée sur une période du 4 10 2016 au 1 1 2024 ce qui veut dire que tey euh, y un problème majeur mooy que carte d'identité yi nga dem récolte ko sur le terrain yëpp boo xoolee 98 pour cent yi benn valable ci parce que carte d'identité biométrique c'est en 2016 et que la date d'expiration minimum c'est en 2026. D'accord ça c'était une erreur. de la DGE ou bien jàpp nga ne leneen moo ci lalu. non jàpp nañ leneen yàlla moo leen weer parce que yàgg naa ko wax ah. ñun boo xoolee législative bi ñuy daaneel on nous a euh, sorti de vingt mille non électeurs alors que ñëw ñëp ay électeurs la ñu génne seen carte d'identité teg on nous a euh, sorti aussi dix mille tailles non conformes parce que le discriminant bi c'était la taille et que boo xoolee carte d'identité ñoo ñëpp la taille était conforme même le logiciel li muy génne day defaat même taille. et pourtant day wax taay non conforme ce qui veut dire que logiciel bi la fa nekk bokkul en adéquation avec li nga xam ne moom la ñuy liggéey sur le terrain et li ñu verrouillé tey si nuñ ko jàngate mooy que lan loolu yàlla moo leen weer mu dugg suñu clé mais moo war a nekk ci logiciel bi parce que tey boo demee sur le terrain nga récolter ay 2016 2026 date d'expiration ba 2034 parce que la dernière révision c'était en 2034 2024 bi donc bu buñ ko dugalee ci machine bi du nekk en adéquation parce que la machine est verrouillée sur cette période bi ma waxoon muy 4 10 2000 2016 ba 1-1 2024. 2019 on se rappelle bien sûr mhm. euh, woon na bataaxal daal di bëgg a tere en tout cas li nga xam moom mooy parrainage ci biir réewu Sénégal est euh, ne am na ay dysfonctionnements maanaam le Sénégal n'est pas encore prêt pour euh, la ñu gis en 2024. mais tout le monde wax nañ ko wax nañ ko bu fekkee ne France boobu parce que nee mënu ko def amul capacité moyen yu def ko macha allah le Sénégal. donc ñëpp xam na ne tey ji en réalité parrainage bi du dara lu dul faire une sélection surtout fi ñu toll nga xam ne ñoom benn bokk yaakaar yor pouvoir bi seen candidat bi amul tànk donc il faut ñu def une sélection boo xam ne ñi muy dajal day doon ay candidats yoo xam ne dina neex a daan et les grosses écuries risquent d'être éliminées sur un parrainage boo xam ne ils l'ont fait sciemment yàq parrainage bi aujourd'hui on se retrouve avec 256 candidats à la candidature ñoo ko def exprès. vous avez été pourquoi vous pensez que dafa am leneen lu ci dalu mais c'est clair parrainage bi la rek sa à dire que ñoom ils savent tey le mouvement gëm sa bopp tey dafa def un maillage territorial bu extraordinaire fi may wax ak yow nii au-delà des responsables de gëm sa bopp dans les localités qui font un travail extraordinaire il y a 2700 facilitateurs qui sont partout au Sénégal dans toutes les communes dans les 555 ñaari communes la ñu amul facilitateur que ce des îles mais non responsables foofu ñu koy def liggéey bu am solo hmm. c'est pour dire ah liggéey bi nga xam ne ça fait des années gëm sa bopp def na ko dans les profondeurs du Sénégal mais moo leen jaaxal moo leen tiital moo tax gëm sa bopp aujourd'hui c'est aussi un ennemi à un adversaire à abattre. alors Mamadou Gueye. Bougane Gueye Dany nga ne moom mooy doon président en 2024. incha allah passation bi ce sera en avril au palais incha allah. pourtant Bougane n'a jamais gagné d'élection. ah yàlla mooy def loolu mais li am solo bu am solo kii gagné réew mi muy le président Macky Sall. élection ya mu demoon ñëpp xam nañ ko il moins de trente mille voix avec Dekkal Ngor ñu gagné ñaari mairie pourtant gagné na pourtant ñu élection locale yu ñu dem on a deux cent vingt deux mille voix génne troisième à Dakar avec soixante six mille voix romb PDS partout au Sénégal deux cent vingt deux mille voix gagné six communes. donc comparaison n'est pas raison mais boo ko xoolee ñu xam ne yàlla mooy fal. oui gëm sa bopp mais pas en on se rappelle euh, élection présidentielle déjà jàllul woon sax parrainage 2021 ou 2022 locales yi nañu li fi xew au niveau de Sacré-Cœur bien sûr. Barthélémy Dias gagné ko aussi avec Sacré-Cœur Bougane campagne wul toogu foofu deux derniers jours la ñëw parce qu'il était partout di accompagner yeneen candidats yi dans leur zone. parce qu'il avait confiance à Dakar ñu yàq loolu. yéen koy fàttaliku. bien sûr ñu yàq liste Dakar bi donc loolu avec Bamba Fall mais c'est pas grave ce qui est important c'est que aujourd'hui tout le monde sait que gëm sa bopp est une réalité politique tey jii. dañuy wax rek coow lee ba rek mais gëm sa bopp bu ñu demee élection incha allah dinañ gis dinañ dégg yuuxu fu ñu ko foogeewul. d' accord euh, on parle de report d' présidentielle surtout avec euh, le candidat à la candidature Boubacar Camara euh, bi yëkkati kàddu yooyu parce que jàpp na ne tout en n' est pas réuni pour ñu dem élection présidentielle 2024 apaisée inclusive mais aussi élection yoo xamante ne dafay nekk élection transparente est peut-être jot nga yéen ngeen xalaat pour ñu reporter élection présidentielle xalaatuñu ko benn yoon moom boppam lay waxal parce que ñooñu dañ leen yónni genre googu xam nañ a yónni mais ñi leen yónni ko mais c'est clair c'est clair que ñoom dañ leen yónni parce que ñoom xam nañ ñun on est dans le système on sait ce qui se passe et vous risquez même de trouver d'autres ñuy wax le même langage alors que le discours c'était pas ça déjà ñoom ils sont pas prêts ils peuvent pas avoir de parrainage là où ils habitent. Boubacar Camara. c'est clair et net et précis maintenant c'est des gens yoo xam ne dañ leen di yónni c'est un lobby aujourd'hui pour essayer mais à la kulli àlin élection yi képp kuy wax yenn waxee da nga parewul un de deux honnêtons en toi-même parce que ton discours il y a même pas quelques mois diffère aujourd'hui élection yi tout est réuni pour ñu dem ci parce que tey réew mi mënul continuer nii nit ñi sonn nañ nit ñi dunduñu boo feebaree doo et on voit une, une discrimination sélective boo xam ne bu doy waa où les droits civiques de certains candidats sont bafoués aujourd'hui il urge que ñu dem ci politique jël un technocrate koo xam ne liggéeykat la teg ko ci boppu réew mi bàyyi ses politiciens professionnels pour ñu mën a liggéey réew mi parce que mënuñu liggéey réew mi tant que amul stabilité sociale tey gis nañ ne carrément y a une injustice énorme kumba am ndey la kumba amul ndey ci réew mi loolu dafi war jógee Sénégal moo gën a riche hmm. Europe bi nga xam ne xale yaa ngi fay daw te pourtant ñun ñoo gën a ndóol ñëpp alors que on a tout yàlla teral nañu sur tous les plans. mais lan la ñu mën a def pour xale yi ñu mën leen téye justement yaa ngi koy wax immigration irrégulière bi ça fait des dégâts au Sénégal qu'est-ce qu'on peut faire lan ngeen di proposer comme début de solution. justement li ñu leer na nañ aujourd'hui boo jëlee le domaine de l'agriculture. Hmm. on a nos terres on a de l'eau on a le soleil mais tey dañu bëgg maintenir les paysans ci seen statut de paysan boobu donc ñuy béy deux mois trois mois. bu leen di jox gerte ñu jox leen tuuti semence tuuti et cetera alors que ces agriculteurs là devaient se transformer se muter avec l'accompagnement de l'État en entrepreneur agricole parce que en réalité la ñuy produire li indi alal ji mooy la valeur ajoutée mooy transformation avec des unités légères yoo xam ne tey ils peuvent assurer toute cette chaîne et créer des emplois booy bëgg nañ liggéey boo leen gisee ci tali yi ni ñuy daw di jaay mouchard et cetera buñ ko amoon tey ci seeni terre tey dañuy liggéey loolu la ñu Maroc ak yeneen dëkk yi rawee soo demee tey lu mel ni Côte d'Ivoire boo xoolee Côte d'Ivoire tey les agriculteurs statut bi ñu yor et puis alal ji ñu am aussi ce sont des millionnaires ou des milliardaires fii rek ngay gis tey da ngay ñàkk di gën a torox da ngay da ngay da ngay liggéey di gën a dellu ginnaaw nga gis ñoo xam ne du ñu def dara des fonctionnaires milliardaires dañuy tëdd lépp di naaw lépp di ñëw loolu dafa war a changer ci réew mi liggéey baa ngi fii alal jaa ngi fii on a suñu ressource minière kenn wax nu mu doy lii gën a doy waar fii ëpp or tey boo fa demoon tey ñooñu ñoo gënoon ndóol ñëpp hmm. gis nga situation yi ñuy dund parce que dañu am ay jiit yoo xam ne aussi dañu bëgg a maintenir cette population dans cette dépendance là élection bu waaj day ñëw ñu ñëw sotti leen alalu réew mi nax leen faluwaat pour mën a continuer li ñu nekk mais je crois tout le monde est et chacun assumera la pleine mesure de sa responsabilité. mais est jàpp nga ne duñu yeggaat situation bu 2024 bi ñu dem. non je crois que yeneen nit ñi tey boo gisee Sénégal li mu mutéwoo tey euh, la population s'est exprimée que bëggatuñu ñu leen di jiitee nii et du Sénégal rek Afrique la il y a des yoo xam ne mais la population s'est exprimée mais à la tête de cette population il faut le dire et il faut encore une fois ñu nangu ko il faut avoir le courage de le dire Ousmane Sonko puisque c'est de lui qu'il s'agit euh, bokk na ci ñi révolter justement en quelque sorte cette population et cette jeunesse euh, effectivement c'est Euh, qu'on les appelle les antisystèmes li ñu gëm ba gëm mooy tant que lii mu ngi fi dañuy gën di sonn dañuy gën di ndóol te il faut qu'une génération se sacrifie pour que suñuy doom yi jaar suñu kaw pour que Sénégal mën a avancer et loolu lañ nekkee li ñu nekk bataille bu metti la parce que il est extrêmement difficile contre un régime qui est en place qui a tous mm. les pouvoirs ñoo ko ko mm. jox mais aujourd'hui nañu gëm rek parce que gëm nañ ne en 2024 il y aura le changement. il y aura un changement bien sûr mais euh, il faut le dire encore une fois puisqu'on parle de l'actualité l'actualité c'est ça tourne autour justement de de de, de la direction générale des élections euh, la Sénat euh, qui a dit il faut donner à Ousmane Sonko Euh, les fiches de parrainage, la DGE qui, sortent, euh, qui seront communiquées pour dire non, Sonko n'est pas éligible, Sonko n'est pas dans les listes électorales. Est-ce que beaucoup de candidats qui ont Ousmane Sonko a fait des fiches de parrainage La DGE, je l'ai dans plusieurs plateaux, a outrepassé ses responsabilités. man maa demoon jëli pour la grande coalition gëm sa bopp la DGE acharnement lay def bu doy waar parce que boo ñëwee tey liste la ñoo ñun ñoo ko créé siwiti pour nous organiser suñu rappeler soo duggee par 10 boo ñëwee dañuy xool sa lettre xool sa carte jox la numéro. Hmm. nga yéeg par dix et ce numéro la mooy tombé ak sa numéro enveloppe. donc il y a aucune vérification sur nit ki mooy kan et cetera et cetera ce candidat là est ce qu'il est éligible est ce qu'il jouit de ses droits civiques donc amul. donc en réalité ñoom seen mission du dara lu dul ñu joxe les fiches de parrainage l'enveloppe expliquer nit ñi yaa parce que y a une petite information bu lay jox hmm. jox ko nit ñi nit ñi dem c'est pas le rôle aujourd'hui naan kii moo war a nekk candidat wala kii warul nekk candidat ça c'est au niveau du conseil constitutionnel mais ils ont outrepassé leur leur responsabilité loolu moom acharnement la rek tey jii nañ ko wax nañ ko dëgg euh, bu fekkee ne justice bi dafa tëddee ñaaxanaay biñ ne radiation en dissolution parti bi en moins de vingt quatre heures ils la loi ba dem wekki sax seen affaire yi seen seen affichage yooyu mais bu nee décision de justice wàcce waan na pour une réintégration vous voyez le cheminement moo tax ñu ne kumba ndey am ndey kumba amul ndey et c'est un acharnement boo xam ne kenn mënu ko natt et li Sénat wax loolu mooy dëgg nañ ko jox ay fiche ñu def seen def seen i parrainage def seen dossier ñi nga xam ne ñooy saytu ku bokk ak ku bokkul. Hmm. ku am yoon wala amoo yoon pour bokk loolu conseil conseil bu ñu fa àggee. combat m ndey ak combat amul parfois on voit des candidats surtout ñoo xamante ne bokk nañ ci opposition bi dañuy mais dañ leen di téye Bougane Gueye avait été justement euh, maanaam euh, nekkoon na victime ci li ni alors euh, le, premier ministre candidat à la candidature de la coalition Benno Bokk Yaakaar est en tournée dite économique mhm. selon vous déjà économique ou politique trop politique excessivement politique en réalité ce qui se passe ce rien d'autre yàgg ñu wàcce seen candidat bi qui était entre le ciel et la terre parce que le président a eu des difficultés pour se prononcer sur cela parce qu'il avait d'autres objectifs lui-même il voulait être candidat malheureusement euh, la réponse du peuple la réponse de l'international ñoo ko téye ba mu mm. ñëw si leneen def day des candidats ñu koy saluer parce que teg na décision historique boo xam ne kenn du xalaat di def ay troisième mandat ça c'est très bien un premier ministre su fekkee nekk na premier ministre est-ce que le président avait il n'a pas le choix il peut pas avoir le choix sur tous les plans de manière juridique ak sur les plans amul amul choix maintenant nag boo amee courage am à deux mains inscrit boppam ci histoire politique Sénégal nga bëgg ko bañ ko Macky Sall a posé un acte majeur. il doit continuer dans cette logique là def ay élections libres et transparentes et soo jëlee sa premier ministre def ko candidat. il faut que premier ministre boobu mu courageux yow sax nga mu démissionner ci gouvernement bi nekk un candidat d'une coalition taxaw. si même ligne bi que ñeneen ñi. mais bu ñu demee deuxième tour Bougane kan lay àndal. li ñu gis mooy kumba am ndey kumba amul ndey. parce que aujourd'hui tournée économique non tournée politique parce que bu may dem di inaugurer benn hôpital. Hmm. soxlaa ma di amender toute la république. soxlaa ma di def ay mobilisation di def des importations de militants et cetera on n'a pas besoin de ça. moo tax ñu ne tey il utilise l'argent du contribuable sénégalais. pour ne tournée économique aussi était tournée. qui en deuxième tour une fois Bougane Gueye dem deuxième tour ou bien Bougane demul deuxième tour candidat opposition bi dem deuxième tour imaginons Ousmane Sonko est-ce que. je am lecture politique xam nga ne. Hmm. à la coulée Aline dañuy gagné réew mi. premier hmm. tour gëm sa bopp moo koy gagné. premier tour bu ñu demee élection li man maa la ko bindal nañ koy gagné premier tour à la limite à la limite ñu dem deuxième tour. te bu ñu demee deuxième jour c'est sûr que l'opposition dinañu jàppale même waa Benno Bokk Yaakaar nii fi mu toll tas la sabar gu tas la hmm. ñu bari dinañu jàppale ñun loolu la ñu gëm parce que li ñu liggéey depuis 2018 man ma gis ko ci terrain bi foo dem foo xam ne zone yoo xam ne sax les politiques ñu fa ñemee dugg parce que y a des attaques oui. des gens qui se sentent plus maliens que sénégalais fu ne la ñu dugg am fa ay nit am des cellules yoo xam ne actives ñun bu ñu demee élection incha allah premier tour gars yi ñu gis. ñu jeexalee foofu te bu ñu demee deuxième tour incha allah opposition ñëpp dinañ taxaw pour que ñu dégager système bi pour que les sénégalais am beneen forme. Hmm. am beneen respiration. parce que tey gëm sa bopp la il faut que le sénégalais ñu dugal ci yaramam day gëm boppam ba nga xam ne tey la américain bi man di pousser ay montagnes suñ ko ko waxee. Hmm. mu gëm boppam yaakaar na moo gën ci àddina il faut loolu ñu inculquer sénégalais yi. teg leen ci ay situation am leen mën a tekki ci réew mi liggéey ci réew mi hmm. et Sénégal y a tout pour qu'on se développe malheureusement on a des fonctionnaires milliardaires hmm. et ça ça n'existe nulle part macha allah Mamadou Gueye euh, l'original bien sûr euh, di coordonnateur national bu euh, gëm sa bopp dégg ngeen kaddu yi mu yëkkati ëllëg lay doon incha allah 12 minutes chrono ba suba ak